coow li dox ci digganteeg Wally Seck ak Sidi Diop ginnaaw ba ñu déggee ay kàddu ne kii di Wally Seck moo wax njàpp ne ko sa patron maa ko dàq way ñii naan ndax Wally Seck moo wax jëf jooje ñii naan ndax Wally Seck waxu ko dinaa ci ñëw waaye laataa may dugg ci waxtaan wi dama leen di ñaan ngeen abonné fii ci Tiptop Cas 221 ndax lépp luy actualité xew ci réew mi fii lañ koy daal di traité ba mat sëkk mbokk yi maa ngi leeral lu jar a leeral déglu sama kàddu yi bu baax a baax a baax a baax dëgg nag fu nekk lay jóge te ku dégg wax xam ne wax bi neex naa dégg mbokk yi Sidi Diop ak Wally Seck ñoom ñaar ay mag ak rakk lañu Sidi Diop ak Wally Seck dañoo tolloo génération yow mi bëgg Sidi Diop loo ko bëgg bëgg bëgg bu mu jaral ngay yëkkati benn wax bu ñaar di ko wax Wally Seck boo xamante ni ëllëg si biir di ko rëccu dafa am lu ñuy wax bataille psychologique entre Wally Seck la ak studio ku ci nekk ni ngay yëngalee sa game ku ci nekk ni ngay jaayee sa promotion yaa ko xam ñoom ñaar la mais mbokk yi Sidi mën na way Wally mën na way mais am na leen loo xam ne foog ñu d'accord que Wally sekk suñu borom daf koo may loo xamante ne jamono bi mayu ko benn musicien dañu ne nag ku nangul yàlla dogal doo sonn sa du jeex Sidi mën na way ba fu may yem di am na public nit ñi ñu koy bëggee Wally Seck tamit la même chose mais ku ci nekk bu d'accordé ne sunu sama artiste wala yow sa artiste li mu am sunu borom moo ko may kon kenn sonn mais nag buñ bëggee ëlbatiku nag bu affaire bi bëgg jur coow ku ci nekk wax wax bu ñaaw sa morom nañuy suuraale ëllëg du añ du reer am na loo xamante ne bëgg nit jaru ko am na loo xamante ne fan nit ki jaru ko tey jii nii Wally Seck li mu bëgg-bëgg yëngal-yëngal am na loo xam ne tey du ko wax benn kàddu gu ñaaw Sidy Diop Sidy Diop lu mu bëgg-bëgg yëngal-yëngal am na loo xam ne du yëkkati benn kàddu bu ñaaw di ko Wally xam ne sa morom ci lu bon wax ko dans quatre ans cinq ans fi ngay rëccu naa su ma yëgoon di ma ko wax lii te pour pourtant ñoom génération yu Ndour muy Thione Seck Omar Pène ñoom seen génération nii la meloon mais dañ ko rafetaloon ñii tamit seen génération tamit ñu ngi koy rafetale seen biir te balaa nga koy gën a xam dans vingt ans si kanam Wally Seck jël musique bi teg ko à côté moom ak Sidi Diop dañuy nekk jàppante lonkonte léegi yow mi nga xam ne nag yaa amoon kenn koo xam ne da daan ànd ngeen yàq ko yàq boo xamante ne musique moo tax kon nañuy sóoraale loolu bu baax a baax a baax a baax mbokk yi réaction nag Adamo ñu bëri ñu ci àdd naan Adamo lii waru koo wax waru koo wax xam nga lu tax Adamo dafa bëgg Wally Seck du nangul kenn koo xamante da yëkkati benn kàddu gu ñëw di ko wax Wally Wally Seck Sidi Diop tam ñu ànd ak moom tamit la même chose du ñu yëg nangu benn koo xam ne dina yëkkati benn kàddu bu ñaaw di leen ko wax maa ngi jéggalu bu fekkee wax naa fi lenn lu déranger ñi waroon déglu lépp lu fi jóg ngeen xam ni ci ndimbal suñu borom la maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen